waaw mbooloo mi ñu ngi leen di waxaat asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu góor di nuyu jigéen di wàccee it kenn ku ne wàccu di ñaan yàlla tabaraka wa taala li tax ñu daje fi yal na yàlla nangul ñu mbooleem jaamu yàlla bu ñu fi def weeru koor wi it ñu nekk muy chahru ramadan al mubarak liñ ci jotagu mu woor yal yàlla nangul ñu fan yi nga xam ne it moom lañu dese yàlla na yàlla kartanal ñu ba ñu mën kaa woor ci jàmm buñ ko wooree moom it yal na yàlla nangul ñu yàlla may ñu fekkee at yu bari ci barke alquranil azim ceerno nak mu ngi dalal mbollem ki nga xamne dag nga say yitte ñëw wuy ci wote yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne mom la yàlla waxon ci làmmiñu sayyiduna muhammad mom ceerno yit fa tabarakallahu muy degeural kàddu gogu muy istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائرات هاتين أنا لكم أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فيقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تس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 صدق الله العظيم سيدي صل ما شاء الله بوكو ديفه ان شاء الله تعالى امام شيبه موميت ليغا خامني موم لاكو يالا ورسغال سي ورا ييغي سي ميساجام مو ديفكو ان شاء الله تعالى امام موسى جاي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي زيارة مبقي يب وعيد جيت الفضلة الشيخ جرنا حامدو di imam musa ñu ngi lay ndokkeel borom dëkkandoo jàmm sa gën yal na yàlla defal la tawféex li may wax aljuma bu ne rek nuyoo ziyaaraat ñi fi def ay waxtaan yépp sa loxo lañ koy teg ndax wuutu bi matale na te la nga say waxit ku fa toogoon it ah mënul wax la ëpp la ngay wax yàlla na yàlla gën a guddal sa fan gën la dëgëral bu baax dëgg yàlla sa nekk fi njariñ la kon nag fa jazaahu llahu xayran ahsanal jaza ñu ngi nuyu mbokk yépp ah xaj na dafa mënul ñàkk rek waaye xawoon nañ sax am ngànt wax dëgg yàlla waaye nag ñu ñëw ci ndigalul ceerno rek gën a feddaliwaat suñu jaayante ak moom ndax limay faral di wax rek mbir mi toll ku si ne rek am na waaru mu la sas diw nekkal fii diw nekkal fii diw nekkal fii su ko defee nag yàlla bu ci waaru kenn booy incha allah yàlla na mbay mi refet ba ñu góobu ko ndoo ak jàmm incha allah ca kanamu yonent bi sallallahu alayhi sallam mu yéegal ko sa xadratul xudsi ci borom bi subhanahu wa taala mu mel ni bu ñu waxee badar rek xel yi dafay dem ci xeexu badar bu ñu waxee badar xel yi dem ci shahru ramadan al mubarak shahru allazi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan di weer wi suñu borom tànn wàccee ci alquran ci lawxul mahfuz ba ci baytul izza événement bu jot mu wàccee la muy wàccee alquran boobale dafa ñëw ngir gindi doom aadama yi moo tax mu ne hudan linnaas kon nag li mbokk mi wax léegi isa daakum lima yuxyikum rekk moo fi ne suñ lay oowee luy dundal sa ruux lima yuxyikum lu lay may tiyaabu lima yuxyikum lu lay faral ay bàkkaar limaa yox yikum yu lay fajal say aajo limaa yox yikum limaa yox yikum limaa yox yikum kon nag ki ñuy woo ci yu woowu di ceerno ah yal nu ko yàlla fayal yal nu ko yàlla fayal dëgg yàlla alquran hudan linnaasi dafay ñëw ngir gin di doom aadama yi defal leen teraanga mboolem xeetu teraanga waaye xaw ma ku ko xamul waaye gox bi ci boppam waxuma nit ñi waaye gox bii ñu dëkk xam nañ bu baax ne alquran hudan linnaasi te yàlla mu ngi ko jaarale ci jëmma ji di Ceerno Hamidou Bane kon bu ñu delloo remonté tuuti delluwaat ci Badar damay damay damay barkeelu rekk ndax uh, imaam Moussa mu ngi fi Badar dafa bari ay jàngat yuñ ci mën a jàngat waye lima ma inspiré léegi rek moy xale yi nga xamanteni ñu ngi ci daara ji ñu dolli ci am ku ñëw tok fi suñu kanam jàngal ñu alquran khayrukum man taallama alquran wa allamahu la yantabi wax kon jang yag na waye ku jàngul rek da ngay sank ndax do xam foy tek sa tànk gis lol motax moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwat badrin bok na ci xalaat yi mu teurelon ci prisonnier de guerre yi japon ci yefari kep ku jàngal fukki dom ci jullit ñu libéré la jàngal len bañu ñu lire mënu bind far ijje rek ñu libéré la gis nga muy wuyu ca la ko jibril alayhi salaatu wasalaam waxoon jaarale ko ci kàddu boroomam ne ko iqra iqra sosal daara iqra jàngal iqra sosal daara ngir jàngale sosal daara ngir gindi doomu aadama yi sosal daara ngir di ubbee doomu aadama yi sosal daara ngir ku xamul woon nga fàttali ko kon nag ceerno ci loolu lay wëy sos daara joo xamante ne non seulement foo nekk foo nekk rek di nga mën a bénéficier si daara ji muy Safina FM Safina TV kon nag yàlla yàlla fay ñi fiy def ay waxtaan ñëpp macha allah kon nga gis ne loolu stratégie la bu l'islam jël ne jullit bi dafa war a jàng moo tax ñuy wax ne al ulama warasatul anbiya ñii doon na yonente yi ñooy boroom xam-xam yi ndax yonente yi kenn du leen doon na ci alal kenn du leen doon na ci daara waaye ci xam-xam lañ leen di doon kon bu ñu yéegaatee xazwatu badrin mu ne kum jàngal fukki doomi jullit ñu mën a bind mën a liir ñu goreel la kon mu ngi préparé doomu jullit bi nekk danga war a jàngi mu ngi préparé doomu jullit bi ne danga war a jàng barayaana yuy xew ci jamono borom xam-xama fa newul waaye ku taaloon daara ci gox bu ne comme ni mu amee fii wallahi gëñ naa ne bon ak réer dana fi dàqu sànku te dana fi sànku fo mu bari dana fi dana fi tumuranki waaye foo dem rek fo mi dafay gën a tukkarnaasi wax ji maar day taali moo tax suñu borom di wax ne wa qulu linnaasi xusna di leen waxu nit ñi ak ñoom wax ju yiw wax ju tegginu su nga yonte yàlla Moussa même ba ko yàlla di yebal ci firawna daf ko wax ne ko yaa haaruna fa quula lahu qawlan layyina ngeen demee na ngeen wax ak moom wax ju tegginu wax ju teey wax dañu koy defar dañu koy odd te loolu alquran daf ñu ko jàngal kon li yàlla wax ci alquran ne hudan linnaas dafa ñëw ngir tek nit ñi ci siraatul mustaqim motax suñu borom di recompenser ñi ñiy jàng xam-xam ne malaaka yi dañuy talal seen laaf di leen ne leen dox leen ci yéen ngi dox ci yermane borom bi daf leen di yombalal seen yoonu aljana amul dara lu leen di pakassal moo tax mu résumé moom yonent bi ne xayrukum daal man taallama alqurana wa allama nga nek borom xam-xam di jàngale alquran wala nga nek talibul ilmi di jàng alquran wala bok nga soppalen ñom ñaar ñep soppalen gis nitu alquran di ko teral teraloo ko ngir mom jëmmam waye dang ko teral ngir yàlla dang ko teral ngir jëmm yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon jaayante boobu yonent bi jaayante ba ne ku jàngal doomi fukki julit ñu mën bind mën a liir far ije rek ñu libéré la ci diir bu gàtt kon sas nañu ñun ñey ñëw si ginnaaw kon nag mbiri dafa laaj la mu doon wax ci alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun am na ñu fi wutum mag ñu baax ñi waaye dañu sàggane lépp adaau salaat wa tabaau shahawaat ila axiri doyadil julli topp seen bakken topp seen bànneex seen bëgg-bëgg àddina rekk topp ko rek topp ko rekk kon mbokk yi jaaduwaat na ñu xoolaat suñu bopp bu baax ci nafar alquran motax suñu borom ne afala yatadabbaru afala yatadabbarun alquran waaw teewon ana lan mo dox seen diggante ngeen di chambar alquran di ko gëstu gis nga si njàngale mi ma doon wax ceer na yemu si ci weeru koor wi jamono boo ñëwee fekk fi waa silleen bi pa matar silla muy def tafsirul quran yàlla na nu ko yàlla fayal kon fi bërëb la bo xamantene ne bokay set du pour dara nag waye daf lay da ngay jàppane yaangi ngi ci keppaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ay diglem ay terem rek lañuy jima doxal fi ay diglem axi terem rek kon xale yi fi mokal alquran ah la علي بن ابي طالب wax ne wallahi la an yahdiyaka allahu bika rajulan waahida xayrun laka min xumru naim géñ naa ne benn nit gindeeku ci yow moo gën foof ci yàlla nga am adina li ci bir xumru naim gelem yu bare bare ku ne xamna na richesse arab yëpp gëléem la nga am ci ciogal go xamantene da ngay xol ba subbatiyam way waaye naim mune ne benn nit gindeeku ci yaw rek mo gënal yàlla foofu kon ñaati nit ñoo fiy gindeeku imma da nga ñëw toog dégg fi waxtaan jariñu ci ne ah waxtaan yu imam Moussa waxtaan day macha allah jël naa ci bind bii tey dinaa ko jëfe nga déggaat keneen nga ne jël naa fa bind bii dinaa ko jëfe boo demee kër ga nga fexe mu law muy méngoox la yonent bi waxoon sa xajjatul wida fal yuballihi shaahidil ghaib ki tew ci sama jotaay bi bu démé rek na transmettre message bi kon ni turaas la ndono la jo xamantene ne yàlla na jëm kanam yàlla na gëna sax xale yi ñi leen cierno tanal ma sha allah ma sha allah ma sha allah allahumma la adur wallahi bo fi ñëwee rek da ngay bëgg xale yi bu ñu taaree rek nga bëgg kon nak sant yàlla bu baax ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci xew-xew badar bi nga xam yag nañ di ko fi def yag nañ di ko fi def te jotaay bi dafa am solo nga azkar yi ñu doon def yonent bi mu ngi wax ne bépp majalis zikri dañu koy considérer comme riyadun min riyadil janna iza marartum bi riyadil janna farta'u yonent bi dafa xam ne bu ngeen rombee ci dëri aljana yi maanaam ci toolu aljana yi bu leen ko romb rek dem waaye na ngeen wett da ngeen wetta si meññeef bi kenn du leen ko tere ñu ne ñu ngi fii ci àddina fa maa riyaadul janna mu ne majalisu zikr bépp palaas bu ñuy tudde yàlla rek foofu ci dëru aljana yi la bokk suñu borom ne waaw malaaka yi ñan ñoo fa ne bu doon nit léegi boo ne woon Bachir recensel ma ñi fi ne mën na sonn ne à daal nangam waaye malaakay yi la wax diw la doomu diw doomu diw diw doomu diw doomu diw ba mu jeex suñu boroom ne waaw ñoom lan la ñu bëgg ñoom ñu toog foofu la ci bërëb bi ñuy tudde yàlla ñu ne ah ñu ngi ñaan sa xéewal sa teraang sam njéggal di muslu sa musiba muy mbugalum safara say nattu say jafe-jafe ñoom daal lu baax rek lañuy ñaan waaye nag malaaka yi yàlla attention am na ku fa ñëwoon xëy na nag zikkar bi indiw ko waaye dafa am soxla bu ko indi daal soxla daal la ko indi waaye moom la ñu yitteel ñële moom yitteelu ko dafa ñëw rek ne daal sama soxla daal laa bëgg mu faju rek suñu boroom ne ñooñu ma terale sama gaay yooyu zikr duma leen neenal mukk te neenal leen mooy neenal képp ku toog seen jataay kon képp ku fa toogit nangul naa ko dinaa ko defal li ma leen defal ñoom ña doon zikr kon nag ah sant yàlla sant yàlla bu baax yal yàlla defal ngëneel li yal yàlla defal ngëneel li yal yàlla defal ngëneel li jotaay rek la bu yiw wax dëgg yàlla jotaay bu yiw جتاي تود يال فاسكروني اسكركم لا يالا واخ تود لين ما تود لين فاتلكو لين ما فاتكو لين نلين سي ساماي مبير ما نس سي مبير تا يالا سوخلا وول نون دارا غني عن العالمين سوخلا نيت ني دارا لب لو سي ديف ريك سي سا بوب لاي ديلو وات كون نك يالا نو يالا ديفال توفيق امام موسى موميت مو اندي مساجم اندي يوبلم اندي فاتلم اندي نجانغلم بنوبي إن شاء الله تعالى لنتي وراتك نتك كوتي بسم الله إمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين بوكي دي بوكي جلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak mbaxam lañu mayaate ñu amaat jotaay bu ñu miin fii te moo di fu weeru koor teroo ba ñu toll ci bëccëg bu doy waar ba te mooy bëccëgu badr sunu kilifa gu tedd gu baax gu tabe yéwén dinañu fi daje victoire boobu fa sunu yonant amoon ñu fesal fii sunu mbégu feete victoire u Badr moo waral guddi gi tey ñu defe ko na mu ko daan woote ñu ko ci daan wuyu imaam alxaaji Cheyba fa tabaarakallaahu jërëjëf li wolof naan lu baax du doy rekk a tax ne li nga wax gàtt na matala na te doy na sa kit fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin di la waxit ni dégg nañu sami'na wa ata'na jërëjëf Seydi Bachir et lépp ngi ci biir fàttalee ngi ci biir delloosee ngi ci biir gën fee rawate nag woo bii nu di woo ci yi mel ni saa bu amee bëccëgu Badar noonu guddi gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gane aduna bu weeram ñëwee nonu e laylatul qadr ci dëkk ba ci góor ga yalla dogal mu yilif ñepp tay ci diine muy bàyyi Cerno Mouhamed bashir muntaga Cheikh El Hadj Omar bu xatmiya ñëwee ak katmiya noonu wooteegul dara dal jëmale ci boppam day woote ba njabootu yàlla yi ñëw mu dellowaat yàlla yàlla na yàgg te yàlla nañ ko yàgg jariñoo yàlla defal la wér ak wérle mucc ak mucc dund ak dund la boole ñu ko wépp jullit di feddal it sunu mbégte ci xar kanam yi nuy janool te saa bu jotaay bi amee ñu janoog ñoom kenn ku ci nekk rekk ngay sa moroom sa moroom di yow noonu fa tabarakallahu la ñu toogee nii ci néegu yàlla bi di ndokkeelit ñañu daan mas di ndokkeel ci yu mel nii te mooy abadila yi xaaji abdullahi bare nga nële toog ma diko ko ñee ndax xaaru xira doj wa iqra bi imam sebo doon wax sampal daara primi neex na ma lool iqra sampal daara daal neex na ma lool tabaarakallaahu Ceerno def ko fii te mooy xale yi amagul bàkkaar jàng fi alxuraan bu rafet bii te set te sell e ak sunu sët bii nga xam ne moo jàng aaya yi imaam xaaja abdullahi bari ak Ceerno Hamid fa tabaarakallaahu Ceerno Bachir Hamid yaro Ousmane mooy Ceerno Bachir mii dégg naa ñoom am na luñ ñu fa gañe yéeg nañ fa ba wasifa nañ fa xadar euh, euh, euh, laazim nañ fa <laughs> ca xaaru xiira ca doj wa nga xam ni yéeg fa rek risque la sori na yéeg fa rek risque la ndeysaan ñu leen ciy ziyaar nag di ci feddali sunu cofeel ak yéen la daloon maam Cerno Seydou Nour dégg naa at ma mu demee Makka aji dem jabalu nur ñamu andalon nak gisatuñ ko ñepp dafa ñu dafa reer wala ñaan cernu sid nur de ba mu ne dafa dem jabalu nur dal bañ ci lañ ko gëjé gis ben mak ñi leen dal xam ngeen lan la nañ leen dalal suñu xel cernu sid nur dal xamé nak jabalu nur <laughs> nañ ko baye ak jabalu nur xamé nak jabalu nur waye ñu leen ci bu baax ak soppe yu yàgg yi xaaji tafsir a nga nële xaaji tafsir mbay fa tabaarakallahu sunul xaaliqiina la shakka annaka tamsirun bi jumlatihi waaye li ann cheikhaka iksirul akasir tabaarakallahu ak ku baax ki maamam di cerno yahya li Thierno lu la ak moom léegi Thierno Yahya di nitu yàlla boo xam ni nitu yàlla yamu jamonoon teel xamoon nañ ko lool te fonkoon ko lool muy Thierno Ahmadul Amin li di xalifaam teg ca ñëw naa ba fa ñu denc góor ga ca Caaroy ziar naa ko dem naa fa ba foofa ziar naa fa ñaan naa fa xamoon lool diggante moom góor googu ak nitu yàlla yu bari fa tabarakallah asnul xaalixiin et di bég daal ci gise bi ak ci tabarakallahu toogaay bi ñu àndandoo it ak ku tedd ku baax ñu tedd ñu baax sax alxaaji Maodo Kande ñoo dëkk moom it muy nitu daara tabarakallahu bëgg xamanteeg cerno tey gisanteeg moom saafanteeg moom wuyu su ko ci bëccëg bu kenn dul fàtte te muy guddig badar gi ak Pape Ismaïla Kane moo it bëgg lu baax lool na war leena defal ñaan ñoom it ñu bokk si ci sunu mbooloo mii nga xam ni jëmuwaay ba du fenn fudul aljana rek ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yàlla na ko yàlla defal ak sunu ustaaz alxaaji Abdullahi Njaay ñu àndandoo tabarakallahu ñëw wuyu si la ci sa woote bi nga xam ne jëmuk ñun fenn كودل تي الجنه يانم كيالا ديفال تي دار يونتبي عليه الصلاه والسلام واخ تي تاميت دو غود امام الحاجي لا نيغ لاي زيار ابراهيم لا نيغ لاي زيار بو باخ دي زيارت سيد شيخ احمد تجاني ندوي فتبارك الله سن الخالقين اك إيه sunu imaam bu tedd bu baax bii di alxaaji bàcci njaay mu ndar ah demoon na moom it ca doj wa gaa yi de <laughs> moom it Ceerno nee na yéegoon na ca xaaru xiira ca xaar ba nga xam ni fala yàlla xamale yonent bi ah, sallallahu alayhi wa sallam ma yëgalee ko ni ko yónni naa la te boo demee nanga woote wooteem booba nag mooy ñëw ba léegi xaaja abdallahi añ abadi lay tabarakallahu ñu ngi nii toog fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin xaaji malik jóob bu teewul teew na ndax ñoo ko teewal ak daal bokk yépp rek ci gàttal e bëccëgu badar nag imaam Cheyba tënk na ko xam nga yonent bi dafa yàgg màkk dafa yàgg màkk ñu di ko xatal di ko lor di xatal ñi mu àndal di lor ñi mu àndal aleyhi salaatu wassalaam di ko tooñ te jotul ndigal pour xex tax ñemewul won xex nax yalla ko nan xexal mu xex bu ko ko yàlla waxul du xex te bu ko ko yàlla waxul luñ ko def dana ko muñ luñ ko defit ñi mu àndal luñ ñu leen defit dañu ko muñ keroog ba ñu reyee Sumayya reyin bu metti ba ca Makka ma di ci ndokkeel soxna yu tedd yi ñoom ñoo jëkk a wuyu bi ci lislaam jigéen ñi ñoom la seen deret jëkk tuuru ci tooru lislaam jigéen ñi te mooy Sumayya keroog bañ ko reyee reyin wu metti wa ci rekk weddil Muhammad mbaa ñu rey la mu lànk Abu Jahl du mën a mucc mukk yóbbu ko ca pénc ma ay njabootam ngi taxaw ay domam. ñu ni ko daañu indi ñaari fasi gor góor daañu jël ay ceen daañu yew benn ceen ci sa tank ak ci benn tanku fas sa tànku nijoor noonu sa tànku càmmoñ ak ci benn tànku fas boo saagawul Muhammad bàyyiwoo ko noonu ngay faatoo ndax dañuy dóor fas yu ñu dem bu ko defee la cay topp muy sa demin ñu dem wax ko yonent bi yonent bi ne ko def leen defal leen li ñuy wax yeggul ci sa xol muy duma ko def mukk ñu wax wax wax Molang lànk ñi du ko def ñu dóor fas ya loolu kenn mënu sax ba la faatu bi amul pexe ndax amul ndigalu fayu mbaa def lu ni mel mu ñu nañ ko ol njabootam yi ku ne xamul lu mu lay wax lu dul fa inna mawdeekumul janna sunu rendez-vous aljanna la yàlla jox nañu rendez-vous aljanna muñ leen yéen waa kër Yaasir yàlla jox nañu sunu rendez-vous muy aljanna sañul xeex et ñi mu àndal sax daan nañu dem a dem ba jékki-jékki naankaan du yow la yàlla yónni ñun gëm nañ ko mu ne wañ bàyyi ñu xeex mu ne aw ma xeex mais am na beneen pexe mooy jéema a rawale boppam ak ñi mu am bi pexe amul ba amul nag mu mujj joxe ndigal ni dem leen Éthiopie ngeen làqu fa sunu yoonu màkk ba Cerno yóbbu na ma ba Éthiopie wàcc naa fa teg naa fa sama tànk ñu àndandoo fa fa tabaarakala sunu xaalixiin ak ña ñu àndaloon ak Bachir mii ñu lem làqu ji Éthiopie moom mu ànd ak Zeyd ibnu Xaarisa ni moom ma nga dem làqu ji Taayif ca ay najaayam waaye Taayif yàlla nattoo ko fa nattu bi nag am sew sew bu ci am <laughs> ndax màkk ay baayam ñoo fa ne taayif ay najaayam ñoo fa ne mel ni daal sew-sew ba mooy lu tax mu bàyyi màkk di làqu ji taayif ci ay nijaayam mel ni ku fi bàyyi yàlla sunu boroom dafay fiir ci nitam dafay fiir ci nitam lool sax sunu boroom mel ni ku ko seetaan ak waa Taayif nañu ko def ca Taayif jekkul rafetul seddul te metti na aleyhi salaatu wassalaam ndax ay xeer lañ ko teeroo ay xeer ndax baayam ya ñoo gaaw yónnee ni nijaayam ya ñu mu ngi ñëw te dara indiwu ko lu dul bàyyiloonu sunu yàlla yi nuy jaamu indi fi diina yu bees moo tax ba mu yeggee ay xeer yu ñaw lañ ko teeroo xeer yi di taw ci kawam ni ko mayuñu la sax nga taxaw fi bay àddu benn baat mayuñu la nga wax ko toppaatal say tànk toppaatal say tànk dëgg la say nijaay lañu mais sa baay yooyu ngay bàyyi mag ñoom dañoo ñàkk fayda bu ñu amoon fayda rey nañ la bu yàgg waaw waññeekul mu waññeeku xeer yi taw ci kawam Zayd ibn Haarisa amul pexe mu ngi tëdd ci kawam ba xeer yi di ko jam ba xeer yi mujj na jàll Zeyd nàccal yonent bi muy raam muy raam ñu ne ko génneel noonu taayif ba ci benn suufu garabu olive coono bi jàpp ko aleyhi salaatu wassalaam mu tëdd fa falo ko jibrilu fek niko mo ngay nacc fu ne fu ne jam nañ ko fay xeer jibrilu ñew niko malaika yep mer nañu te malaika yep ñu ngi lay seetaan ci ni la wataif def sama borom nak, daf ma jox ndigal te moy yonent bu mu ma sa yoni am na ñaan bu ñu tudde ñaanu sànni tàccu da ngay ñaan léegi mu nangu léegi te ñaan woowu li mu ci lëmës mooy taayif dëkk la doj wu rëy wa nekk ca penkoom ak bu nekk ca soowam ñaari doj yooyu ña ngay lox pour nga ñaan ñaan gi ñaari doj ci tase te taayif far ci kaw suuf dootul amati ci àdduna sa ñaan googu laa la indil nga ñaan ko ndax yonent bu ma sa toll fu mel ni fi nga tollu jox naa ko ñaanam mu ñaan yàlla wallu ko moom laa wolloo Muusa ca ba ko Firawna de dabi ca baxru xalsoomi ñaan gi moom laa walloo noox keroog ba mu jaaxlee ba jàq ba ñaan ñaan gi moom laa walloo Suleymaan ba jaaroom ba réer yi ñaan gi di ko ko limal ni ko nag yow aca ñaanal léegi mu nangu léegi ñépp ngi taxaw di amiin mu ngay nàcc de mais mu jooy moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu jooy jibril di ko seetaan mu jooy ba siggi ni ko eh, ñaan gi bu fekkente ne ñaan léegi mu nangu léegi la ci loolu nga wax mu am balma nga delol ma yàlla ñaan gi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu dencel mako bu ëllëgee ma jallé ko sama xeet Allah na nu yàlla fayal yonent bi ya amiin comme yàlla daf ma nattoo xeetu bu na toy te seen fan guddul na ma dencal ñaan gi bu ëllëgee ma jàllee leen ko allah te lii metti na ma muñ ko ngir moom moom bu ma merewul rekk lu ñëw baax na te it na ma bàyyi ak ñoom rekk ma naxanteek ñoom bu dul ñoom it di seen doom walla muy seen sët mbaa ca sëtaat yi noonu la Jibril delloo ñaan ga waaye yooyu yëpp nag bëccëgu badar fay na ko xam nga taayif ndigalu yàlla yóbbu ko fa rawale ay nitam ak demete xalaatu boppam mais Madina nag ndigalu yàlla ko fa yóbbu mu mu gental màkk génn ko dem Madina ci ndigalu yàlla yàlla yit mu ne ko fa gan ca Madina aleyhi salaatu wassalaam ma ne ko gan ca Madina ba ba bu gàddaayee Madina nag aleyhi salaatu wassalaam foofa nag la amee jote ndigalu xare ci lislaam moo tax xare bi jëkk taxaw ci lislaam keroog badar la te la ca yéeme ba yéeme mooy ndigal daf leen a bett ndax xeex yóbbuwu leen woon seen alal yi ñu confisqué mag muy alal ju bari waa màkk defi seen njëg yooyu ñu daan def ànd ak Abu Sufyaan ak ñooñu leen war a jaar fu xaw a jege Madina ñoom la doon kari pour nangu seen alal ndax seen alal la ñoo ko moom lew na leen waa fa la leen digal la fekk nag te ba ñuy dem yóbbuwuñu gànnaay yu doy yóbbuwuñu daanaka gànnaay amuñu ay waruwaay yu bari te ñoom waa màkk ñoom dañoo wàcc dañoo wàcc ndax ba xabaar ba sennee ñu dem màkk préparé ni Mouhamed mag ñuy kar ca tefes ga ci waxin lañu ñu préparé seen mbooloo kenn desul màkk ñu ne kon nag tey na lislaam far ci kaw suuf Mouhamed ak ñi mu àndal nañ leen jeexal ci kaw suuf ñu def mobilisation boo xam ni góor ak jigéen kenn desul màkk jigéen ñe ni góor ñi jiitu leen ñu topp seen ginnaaw xanaa di ngeen rus di ngeen rus di daw di ñu romb tey moom na fi yem rek waaye ba ndigal la wàccee nag yàlla nu ko ah, tey de maa soxla nag jënd jënd la wax de seen bakkan yi waaw ku ma ko jaral daal tey maa ngi lay laaj sa bakkan pour jënd ko mooy bëccëg boobu ñuy feete tey ndamam la di Badr yonent bi xool ñi mu àndal bariwuñu ak seen xaftaan yu gàtt ya mu xool yéefar yu jóge mag limb kenn mënu xam na mu toll ak seeni fas ak seeni jaas yi ñu ngay bakku rek di deb di bajantu yenenti bi alayhi salaatu wasalaam ba mu waxe juddite ya, ni len ndigal wacc na ci ñu xex te fi mu nak yef yëf de ñu ngi ci kanamu ndigal li ku ci sefit mayul dal, mën nga delu waye ñepp wa medina ñoo jëk aduna ko bu fekke ni ñun ñoo tax ngay wax yow fo taxaw lañuy taxaw ndax affaire bi ñun daanaka suñu yoon newu ci ndax bu dee alal bu ñu confisqué waa màkk yi lañu ñu seen alal ñun suñu alal kenn confisqué bu ko kon nag boo dee wax ba naan yaa ayyuhan naas boobu dafa mel ni ñun waa mujj di ci jublu ñun nag suñu kàddu jox nan la ko waa màkk ñoom ñu ngi ni woon seew xeex bi am ñoom ndax tooñ nañ leen te mënuñu leen te sañu ñoo xeex màkk a ñoom ñu ngi doon nii woon seew doon xaar ndigal waaye yonent bi ñeewante leen ak seen lim bu tuuti ba dégg naa ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu mu ne keroog yont bi dafa ne yàlla tey duma ñaan tey duma la ñaan dama lay wax li xew rekk <laughs> waaw ne ko àdduna ba mu daj kaw suuf ñii nga fi am tey ñii boroom xaftaan yu gàtt yi ñoom nga am ci kaw suuf di àdduna bi ba mu daj boo seetaanee ba ñu rey leen tey dootoo amatiku la jaamu ci kaw suuf loolu rek laa lay wax nee na yàlla subhanahu wa taala lu mu ca teg ba bi ñaanee loola alayhi salaatu ni malaaka yi jóg leen wala taajab nag maam Maodo ca nuuni ya wa yowmal badr jaa u junudullahi Hmm? jibril azrail israfil ñoom ñëpp ku ci nekk ànd nga ak lu ma junniy malaayika booba fekk ne iblis ma ngay ma nga ca kanamu yéefari di leen sens naan leen ñii tey na ngeen leen far ñu jeex benn yoon bu kenn dellu ginnaaw bu kenn def lii bu kenn def laa waaye ba jibril ne cëpp ànd ak ñamu ànd iblis moom gis na leen moom dañ ko si jékki-jékki seen bu nekk ci xel yoo xam ne xajul ci idée maa ngi eh, góor gi góor gi mu naan ci gis naa lu ngeen gisul de tey moom du baax <laughs> li ma gis moom moom gisuleen ko waaye tey moom du baax hmm? yàlla jox malaayka yi ndigal ni leen léegi xeex leen de leen dóor di ko dàkk ci diggante bopp yi ak mbagg yi de leen dóor foofu xare ba di badar gi jëkk ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam upp làmb ja bëccëg boobu nag ñu amee ndam loola la na wootee ni fu weer wi tollooti fii ñëw def ko Badar nag du fi jóg Badar du fi jóg dikkin wi mooy wuute rek waaye boobu xare ba tey du fi jóg àdduna ci boppam sunu dund dund lan la dund perte la dund doomu aadama ak perte la perte googa yàlla doon laaj jullit yi pour ñu perte seen bakken jox ko ko moom perte googu duñu bàyyi mukk ba bu ñu wuy ji yàlla du ñu bàyyi mukk ba bu ji yàlla dund perte la ndax booy judd rek commencé jànkonteeg perte yi booy juddu commencé jànkonteeg perte yi boo juddoo ñu jox ween ngay commencé nàmp boo feree yaa ngi commencé jànkoonteeg perte yi looy gën di jëm mag yaa ngi jànkoonteeg perte yi ñu bari tey seen wér am na lu ci bari yuñ ci ñàkk fii ñu toog nii am na ñu bari ñoo xam ne seen wér ga ñu amoon ñàkk nañ ci lu bari tey perte yaa ngoog ñu ci bari tey ana ndey ak bàyyi ñu ci bari ñàkk nañu leen perte yaa ngoog hmm? moo tax booy juddi di jànkoonteeg perte yi perte yooyu nag la dégg bés By alxaaji ibrahima saaxo yalla na yalla do li leer dafa nekkon sama wëlëre papa xaritam la woon ñoo bokk dëkk tëngéej sam papa momako netti neena bes na mu jaar fa joge këram ci tëngéej ni day nuyu ji alxaaji ibrahima jaar fa neena na ngi fekk mi ngi solo ni ba jekk di waaj dem gam munika ne mi ah, dafa melni da nga nek ci yoon de am ban fa lay mu ne ko kon alhamdulillah ndax dama am ay jumtukaay ay outil yu yàgg ci sama xel lool te outil yooyu yàlla lañ ci war a liggéeyal ci jaamam yi te man aw ma atelier bu ma dugg ba liggéey ko fa waaye comme yaa ngi jëm ci atelier te ngaa ñëw ma abal la ko boo demee nga liggéeyal ci yàlla nee na mu dëjuwaat ci lal bi na mu solo ni ma usmaan toogal noonu mu daan waxe nee na ma toog mu ne ma uti yi yan la ma ni ko euh, yuy yàqu ak ñuy yàqu ak fuy yàqu nee na mu jël ñaari baaraamam yi teg ko ci nopp bi ni ma Ousmane fuy yàqu nee na ma ne ko àdduna nee na mu ne te ma Ousmane ñuy yàqu ma ne ko nit ñi di jëmm yi mu ne te ma usmaan yuy yàqu ma ne ko yëf yi nee na mu làmb poos bi génn xaalis bari na ma Ousmane doo ma abal dama koy jënd <laughs> dama koy jënd waaye dooma leen abal gàmm googu mu jëmoon la ni kuy yàqu léegi bàyyi la Ibrahima sax mooy wax ñu indi la fuy yàqu defal la fa yuy yàqu ne la fexeel ba liggéey fi lu dul yàqu yóbbu ko ca fadul yàqu mu ne boo waanewul doo ko mën ah, ci biir perte googu nga xam ne ci biir dund googu nga xam ne perte la la bëgg nga fexe ba liggéey ci am ci loo xam ne moom ngay gañe kon boo waanewul doo ko mën moo tax la vie est une perte dund ak perte la ci biir perte googu nag lañu lay liggéeyloo nga liggéey fi loo xam ni du jeex nga di ko liggéey ci fiy jeex di ko liggéey yi jeex yow miy jeex ndax nit nga buñ la dugalee ci bàmmeel nga jeex jëmm ji mooy jeex waaye ruux moom du jeex moo tax muy des fa nga xam ni du jeex foofa moo tax e, dund di dund doomu aadama ci boppam et mooy apprendre am mourir ci jàng lu ñuy deewee ëllëg ndax dee moo la tax di dund moo tax boo seetee na ko yàlla indee ci alxuraan xalaxal mawta wal xayaa jëkk tudd dee kon ñun li ñu nekk lu mu doon kon ñun li lu ñu nekk lu mu doon ay mettiti mettit nag séqnu juddu metti na dund metti na dee metti na assalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaasu hayya dund metti na waaye judd bi ko jiitu metti na te dundit metti na kon ci ay malheur rekk ngay nekk ci àdduna te ne doomu aadama juddoo wax na ko ko ndax ku judd dangay jooy ñu ñu fi kon ci ay malheur quand on a le malheur de vivre quand on a le malheur de vivre on doit chercher le bonheur de mourir fi indi hmm? kuy juddu dangay jooy booy gën di màgg di ànd ak ñiy jooy di jooy ba ba nga fiy jóge ñu lay jooy fexe nag ba liggéey fii loo xam ni mooy doon sa texe ba faw loolu bokkoon na ci la taxoon Badar wàcc ba tax yàlla doon laaj bakken ya ñooña tamit jox ko ko ca na mu gën a rafete fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin kon at mu jot bëccëgam ba dat ba su ñëwee ñu toog fii ngir fàttaliku pour kenn ku ci nekk boo fi jógee la lay xaar li tax badar du fi jóg yonent bi da daan wax naan bu ma saan jógee xeex rajaana min al jihaadi al asgari ila al bar al akbar ah, bàyyeekoo nañ ca jihaad ju ndaw ja tey nag ñu ngi dëkk dëkkmal jihaad ju mag ji jihaad ju mag ñi mooy ban jihaad mu ne mooy jihaadul nafs xeex ak sa bakkan sunu badara ngi yal nañu yàlla defal dégg ak topp te yal nañu yàlla may ñu not ko bi jaay sidna muhammadin alayhi salaatu wasalaam ceerno jërëjëf mbooloo mi ceerno nee na gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax mbokk yépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li yàlla denc ci biir nuyo gi yàlla nañ ko yàlla defal ci suñu jotaay bii yàlla na ko yàlla def ci mboolem jotaay yu mel nii te it yàlla na ko yàlla def ci biir réew mi ak mboolem réew yu wër suñu réew mi ak mboolem réewu jullit yépp moy jàmm ju sax ak yërmande gu yaatu ak barke go xamne da fay sax ba ila yawmil qiyamati yàlla nagn ko yàlla defal bu lolou weye ñu ngi ñuy dénk ñu ci jital seeni bop ci ragal yàlla top sunna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mboolem lu ñu mën a def ñaar yi ñoo ci gën nee na ndax badr bi nee na ragal yàlla moo ëmb ci biir topp it sunna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon nag ceeru nee na moom ak aima yi fi nekk ñu ngi ñuy dénk ñu ragal yàlla topp sunna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te it ñu daal di rafetal tamit suñu diggante nee na diggante imam Moussa seen waxtaan ci mardi bi paase wax nañ ci nee na di ren suñu slogan mooy wax jàmm dox ja wax jàmm dox jàmm def jàmm est-ce que ndax jàmm nee ndax jàmm daal ci la lépp xaj wax waxal jàmm doxal jàmm defal jàmm defal jàmm boo tëddee nelaw est nee na suñu maam Ceerno Saïdu Nuru Taal daan na wax ni eh, nee na boo yéenee ñëpp jàmm doonte ne ñoom amuñu jàmm yow moom di nga am jàmm ndax sa yéene boo leen yéene yit lenen bu ñu amul loolu yow moom doo am jàmm ndax li nga bëggoon kon nañu bëgg ñu dox nyuwak ñu wax jamm neena ndax suñu diine diine jamm la neena na bi sallallahu alaihi wasallam bëgg jamm motax mu baye ko màkk mu dem Medina bëgg jamm moko waral même taifa bo gisé mu mel ni mu mel bëgg jamm rek ci bir nee na doom la goo xam ne ku ko tudd foofu ci màkk ñu xam ko maanaam ci famille bu rëy la bokk ci biir màkkatal mukarram comme ni ñu waxee doomu garmi nee na li ko yéeféeri daan teg foofu nee na bu wéeru woon ci meenam mu ne leen kaay leen dimbali ma bu ñooñu jógee nee na pëcc xoo rek mooy dox ci biir màkk waaye daal mu muñ rek ngir jàmm muñ ngir jëmmi yàlla hay sayidna hamza nee na même baayam sayidna hamza li ko ci tàbbil mooy comme loolu rek ndax sayidna hamza dafa fekk abu jahali mu ngi koy teg lu metti ba loolu metti bàyyi Hamza mu génne jaaseem nee na su ma tàbbee ci diine Muhammad gi lu ngeen mën ci man tey ku ko fi laal man mi maay garante sayyiduna Muhammad nee na kooku daal di taxaw mu daal di dox digganteem ak Abu Jahali kenn ñemewu ko loolu moo tax mu tàbbi ci diine lislaam nee na bu jógoon nag taxaw mu ne sama mbokk ñëw leen ngeen dimbali ma ci xeex bii may xeex Hamza ñëw na lu mel ni moom it ñëw ñeneen ñi ñëw nee na ah ni yëfi di doxee ci màkk nee na waaye doxalee ko noonu de dafa muñ muñ ngir jëmmi yàlla mu ne comme que nag kër baay waa kër baay nanguwuñu xaar ma dem seeti kër ndey ma dem ci samay nijaay mu dem fa ñooñu won ko lu gën lu raw li mu doon gis ca màkkatal mu kar ne waxu na nijaay bu waxoon ne nijaay ñëw leen ngeen dimbali ma ci fitna bi bu ñooñu jógoon nee na foofu tamit pëcc xoor moo fa fay am waaye waxul loolu de loolu mu jóge fa mu daal di génn ba malaaka yi ñi yore ngelaw ñi yore ay xeer e ñi yore e safara kenn ku ne ci ñoom e ñëw na ci moom mu ne ñaanal yàlla ñii ñu daal di leen alag léegi mu ne déedéet du loolu de man li ma ñaan liñ ma def yàlla na leen ko yàlla jéggal ndax ñoom lii ma teg xamuñu xamuñu ko nee na kilifa rek war nga jàngat fii kilifa diine war nga jàngat ci lii kilifa di kilifa aada it war nga jàngat ci lii nee na suñu maam Mawlana Cheikh Alhaji Umar Fuuti radiyallahu anhu niki noonu bi mu demee Dingiraay en 1852 walla li ko jege amul liñ ko deful waaye mu wax ci bi mu defoon وظل صابرا لوجه لربه العلي وظل صابرا لوجه لوجه ربه العلي وظل صابرا وظل صابرا لربه العلي لربه العلي وهكذا وهكذا دعب النبي دعب النبي والولي والولي وظل صابرا وظل صابرا لربه العلي لربه العلي وهكذا وهكذا دعب النبي دعب النبي والولي mu muñ رك muñ ngir jëmmi الله nee na muñ nga muñ ngir jëmme yàlla nee na nii la nitu yàlla di mel nee na noonu la yonent yi meloon nee na noonu it kuy jiite la war a mel nee na turu yàlla juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nee na bi nekk ci kaw mooy allah nee na waaye bi mujj mooy sabuur nee na waaye lépp rek la yàlla la ñuy wut si nee na lépp yàlla lay wut si waaye kenn du ci am yàlla lu dul nga duggaat ci biir sabuur bi nee na sabuur bi boo fa demul ba nga nekkaat ko nee na doo yegg fa yàlla de li nga nekk muñkat nga gëmm say bët nga daal di fatt say nopp nga jàpp sa làmmiñ ñu lay teg ngay baale ñu lay teg ngay muñ nee na boobu nag ngay mën a jot sa boroom subhanahu wa taala kon nag Thierno mu ngi ñu ñaax di ñu dénk nañu góorgóorlu ci suñu diine ci suñu slogan bi slogan bi nag nee na génnul te ba tey qaala allaahu de génnul yit qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu doom bi doon jàng léegi ci biir saar bi mu doon jàng ci bopp saar nee na benn phrase rek mooy liñ fi wax yépp te phrase boobu képp ku ko jàpp nee na yow doo gis li lay metti fattaqullaha wa aslihi zaata baynikum fattaqullaha ragal leen yàlla bu ñu nee ragal leen yàlla nee na ëmbaale na tamit topp leen yàlla kon nag ragal leen yàlla jaamu leen seen boroom واصله يوين اللين سات بينكم سيني ديغنتي موتاخ تي بنين تيري بيغا خا خن داف نكو مون فا داف ني لا كانت سانس ديال يعني الاسلام موي جوهر الاسلام نين الاسلام لوموي بري بري بري نين باخنا nga jang yaatal waye bo comprendre ñet tombe yi nga teye len bu baakha baax neena yow jeexal nga الاسلام العقيده العباده الاخلاق

dañuy julli gee ñu teg ci salaatu tasbiix bi bu ñu noppee ci salaatu tasbiix bi balaa ñuy ñaan xatmu quraan bi ñu reer bu ñu reeree ba noppi kenn ci nit yàlla yi wax na nee na fu loxo yi tooyee balaa muy sebet mboolem loo fa ñaan yàlla yàlla dana la ko nangul mu ne it booy dugal leen ci sa poos fekk mbir moo xam ne bu duun la sa xel mu ngi ci dal nee na foofu it loo fa ñaan bëri na lu ñuy nangu ñaan wala ñu andi la ay masin ñun ko raf ñun ko ñëw ba mu rafet nga koy xool koo xool boo xool ci yére nga ne bii moo gën a rafet ngay lem ngay ñaan foofu tamit loo fa ñaan tamit dañ koy nangu nee na fii nag poos amagul dara mbasin ñëwagul waaye nag nee na raxas say loxo fii moom mu ngi fii insha allahu taala ne comme que nag loolu moo gën a jege kenn ku ne ci ñun boo raxasoo ba noppi yaa xam yàlla yaa xam sa soxla sa diggante ak sa boroom lépp looy xam ne sa soxla la ñaanal ngir barke bi su badar e ak ña ko fekke woon e ñi nga xam ne yàlla gërëm na leen ba yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal waa ahlu badr ñii gërëm naa leen dootuma def dootuñu def loo xam ne dama metti man yàlla mboolem li ñu def man yàlla ànd naa ci loolu ngir barke ñooñu yàlla na yàlla def ñun ci barke ñun ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp yàlla na yàlla may ñu wér yal may ñu wérle yal na yàlla may ñu gudd fan yal na yàlla may ñu mujj gu rafet. yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew yi wër senegal yal na ci yàlla def jàmm mboolem fi na di tàkk yal na ci yàlla def jàmm bu jàmm ñëwee ñu nit yàlla may ñu ñu bokk ci jàmm googu yàlla bu ñu umpule jàmm jooju yal na ko yàlla def yal na yàlla seral suñuy xol. mu daal di saralee suñu xol ci faj ah suñuy aaju yal na yàlla seral suñuy xol mu daal di seral suñuy xol si suñuy njaboot ñun ak ñoom ñëpp yàlla daal di ñuy teg ci siraat al mustaqim mboolem yiw yi yàlla yore mu koy may jaam yi yal na yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne ñooy gën a baax le mboolem nattu yi muy fànqal di ko dàqal mbindeef yi yal na yàlla tamit dàqal ñu nattu yooyu ba foo xam ne du ñu gis benn jafe-jafe àdduna nag ak àllaaxira yal na yàlla may ñu ñu dajewaat nag ni ni ak yeneen at yu bëri yu bëri te yàlla boole ci barke bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ceerno kaamil bi nga daan ñu koy mottali incha allahu taala ñu wax amin ñun ñëpp neena fële ca boy naaji la bok neena serigne sifa nek tamit ay kilifa yi ci la bok momit insha allah ñun ñëpp ñu wax amin cierno neena jigen ñi ngeen may ñu rek ngeen nek ci amin bi cierno neena jigen ñi ku ci bëgg sa kër neex bu dé am nga serigne am nga borom kër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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين.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 وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وعاتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم استجب دعاءنا بحق التوريت والإنجيل والزبور والفرقان أعدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان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 إنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار والناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن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 بالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد دياء وبالطاء دهارة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وتيسيرا